BICIC SA Sénégal, banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce au Sénégal, moo leen di may du tigre. ci déglu bi ak seetaan bi am nañu mbégteeg bànneex dali siwaat ak yéen comme niñ ko baaxoon dafa génn àjjuma bu jot ci waxtu wi ñu nuyu leen sargal leen waaye nag am mbégte di ànd ak yéen ci Télé Futurs Médias ànd ak seen émission bi nga xam ne nag moo di l'Oeil du Tigre du ma ci wéet benn yoon ndax nag saa su ne dama ci le tigre de tous les temps maa ngi lay euh, sargal ci bis bu sell bi ñu ànd ak ci émission bu neex bi merci Mathi di la delloo nuyoo encore nuyoo bu gën a mag ci nuyoo yi di wax euh, mbokk téléspectateurs yi képp ku nekk fa nga nekk rek fekk naa la fa ne la asalaamaaleykum

nga xam ne moo di statistique ak ki nga xam ne moo di Ibakat ak waa lam soo ko ñëw ak yéen ci li nga xam moo di revue de presse ñu sargal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci sunu ginnaaw ñu bàyyi leen ñu am lu ñu def ñu dellu siwaat ak yéen ci sunu plateau kon nag jàngeen ngeen jëf li leen ko waxee woon rek eh, ci sommaire bi li ñuy def ak yéen moo di ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di jëli bi jëli bi nag tey Moustapha dañ ci am ki nga xam ne moo di Boy Bawol ak nga xam ne moo di Mame Balla nga xam ne nag ñoo doon bëri barki Demba wala ñoo doon bëri semaine bi nga xam ne moom la ñu génn ñu ànd seetaane li nga xam ne moo di làmb ci laataa ñu koy rek eh, décortiquer. Mame Balla loxo ma nag luñ koy yabee am déet. booy bawol day téye ci loxo yi ba mu neexoo mu bàyyi baaraam yi daal di indiwaat léewtoo bi gis nga. dagg na léewtoo ba cokkas maam Balla booy bool. saa yu maam nattee mu mu dégagé nattee rek mu topp foofu yëpp. nga téete na téete na loxo ya da ko ko ku ko ay ku nga fëgg ko fëgg ko ñoo ngi fëggante rocceeku rocceeku gis nga rocceeku atte dem leen ñëw leen ardo ku boobu mënul ku boobul pourquoi Mame Balla du ci bàyyi xel looloo ma jaaxal sa Thierno quatre quatre fois def na ko mbër day vigilant booy bawal daan na ko dëj na ko dëj na ko kottum biir waaw kottum biir a ngoog waaw wax ko kon nag comme ni leen ko waxee woon rek yéen a seetaanandoo ak ñun combat bi nga xam ne nag moo jàll rek diggante Mame Balla ak nga xam ne moo di Boy Baol ñu bàyyi rek suñu consultant escalité mu daal ñu koy décortiquer waaw euh, Mati Mame Balla seen wàllu ndejoor booy bawal seen wàllu càmmoñ maam baal nag moo xaw a këf tuuti taay moo sut tuuti ki nga xamante ne mooy booy bawal ñoom ñaar ñëpp tànku ndejoor la ñuy jiital imaginez-vous comme Moustapha Guèye di bëri ak Mor Fadam ou Moustapha Guèye di bëri ak Mohamed ñaari tànku daje lañu jiital kii nag nga xamante ne mooy Mame Balla moo gën a nuru bagarreur ndax moo jiital loxo bi nga xamante ne mooy loxo bi nga xamante ne mooy chasser le coup de poing bi nekk fii nag mooy jariñ bu sànnee coup de poing nga ko fël moom la ñuy wax chasser pour mën a remiser donc Mame Balla loolu la armée mu nekk nii booy boobu nag ku nekk xam na ne nekkul xeexkat boobu mais dafay woo xeex nag nga tontu ko mu daw bëtt la loolu kuy liir combat war nga mën liir loolu babos ñu dem jàppante loxo bii mais jàppante loxo bii nag Mansour mais arrangé wul kii di booy bawol astafurlah kii nga xamante ne moom mooy euh, euh, euh, Mamballa booy bawol la arrangé parce que booy bawol mbëru contact la ah mbër la boo xamante ne xeexam ci biir jàppante la koy def bëreem tamit ci biir jàppante la koy def Mamballa ñu xam ko ci mbër moo xamante ne dafa sanguinaire ñëw di xeex di imposer rythme am tey nag Mamballa ñëw ne teg. yaru ba bëgg a dee suivre ki nga xamante ne mooy Boy bool ci lim ko lim fi mu ko woo donc Boy bool téye ñaar loxo yëpp ba pare Boy Baol moo empoigné moo jàpp gauche bu baax moo jàpp encore droite bu baax Babos ñu dem Bambal di xëcc mu bañ mu bàyyi ko déplacé wu c'est intelligent ba tey ñëw taxaw waat moom Boy Baol sànni direct du droit c'est important mais direct droit bi ak siwul parce que gis ngeen loxo bi ñu waxoon ne moom mooy chassé moo nekk fii ak beneen loxo droite bi maam waa ji cokkaas ko ba léegi Mame Balla faywul ba mos ñu ba day Leewtoo Leewtoo Leewtoo Leewtoo Mame Balla miime ba léegi Mame Balla ñimeegul sànni benn kurpeñ xam naa boo demee dañ ne ko boo sànni kurpeñ mu song la nangul sànni kurpeñ booy bool ñëwaat encore jàppaat encore ñaar loxo Mame Balla yi mais Mame Balla pourquoi ngay bëre nit ki di ko jébbal sa bopp déedéet dañuy bëre du mën a may dara te loo may mu jël nga jox ko seen ñaar loxo mu jàpp bi jàpp bii jàppaat na fi encore jàppaat na fii encore baax ma suñu dem maam Balla su ko neexee mu jàpp su ko neexee mu bàyyi léegi bay bool nag léegi li mu bëgg mooy lan xoolal mu ngi koy bëggaloo deux deux trois kurpeñ yi jaxasoo nañu fi trop imaginez vous xoolal ñaari pieds droit ba tey seen taxawaay yaa ngi baax <laughs> Mame Balla li mu taxawee baax na c'est très bon Boy Bool aussi ni mu taxawee c'est pas mal mais gis nga dafa am benn affaire bu ne ci biir koo xamante ne dafay bëree loxo ndajoor di xeexee loxo ndajoor ñoom ñaari mbër yëpp nag dañuy bëree loxo ndajoor di xeexee loxo ndajoor moo tax suñ jàppantee ku nekk sa loxo ndajoor ngay génne di ko dóore te pourtant dans la logique de choses lan la war a demee moom mooy droitier la dama war a téye sama loxo droite dóore uppercut sama loxo gauche donc bi laa war a téye dóore bi pour mën a bëri ji mais ñoom ñaar ñëpp nag dañuy téye seen loxo bi def changement moo tax ñuy taxawee nii ku nekk di bëgg a sa morom donc dañoo laggi seen côté ndajoor en général nag boo ko xoolaatee ba xool ko mbëri fi gisal yëpp mati tànku ndajoor dañoo laggi côté ndajoor ndajoor rek la ñu mën a dóore càmm duñ ci mun dóor dara moo dal ñaari mbëri yi gis nga ñu dem ma mbaala di dóor kii di dóor ku nekk droite ngay dóore ku nekk droite ngay dóore favorable à Boy Baol s'il vous plaît xool leen arbitre bi gars yi bàyyi leen xel arbitre bi ñu dem ñu dem ba tey su ñu dem xool na arbitre bi intelligent imaginez vous arbitre bi mu ngi nekkoon côté gauche xool booy bool bi accrochage amee ñaari ponkal bu ñu taxee dóorante accrochage am ñu tàgg ñu tàggalikoo arbitre bi ñëw xool booy bool defaat benn demi tour ñëw xool euh, ki nga xam ne mooy mba mambal la ci la gisee ne mambal la gaañu na mu arrêté combat bi yebal ko ci ki ñaan ardo ñu dem Bamos félicitations monsieur l'arbitre c'est intelligent quand même quel avenir pour mu dellusiwaat ci lamb ji Leewtoo Mame Balla ba tey il n'est pas confiant boo xoolee kanam gi imaginez vous Mame Balla daawul bëree nii mu ñëwaat encore joxeet encore loxo yi joxaat encore loxo yi kii di Boy Baol donc Boy Baol mu ngi tempo bu baax bi téye na fii encore ba mu dëgër waaye fii nag Mame Balla mooy jéem a téye di empoigné mais jàpp bi muy jàpp nii nekkul jàpp bu nar a baax ah Boy Baol moo nekk ci position bu baax bi parce que il a la main bu ñu lem kee talal loxoom ki lem loxoom nag mooy ëpp doole fi mu ne moo puissance ki talal loxoom mbaa mos ñu dem. booy bool koraat ko encore booy bool kor ko kor ko imaginez-vous maintenant nag léegi lan moo indi jël bi bu ko booy bool koree maam la war na xalaat ne peut-être dañu nekk ci encore schéma bi ñu duggoon sax mooy dóorante bi maam la bàyyi loxo ndeyjooram dem di def contre saisie maanaam dañ jàppoon loxoom mu bëgg dem jàppi loxo bañ jàppoon loolu dafa am ci bëre nag ñu jàpp sa loxo nga bàyyi ki jàpp sa loxo jàpp loxoom nga dem def contre saisie boobu la moom la maam Balla doon def bi koy def nag ci la ko booy bool profité daal di koy dóor coup d'épaule mais nag léegi coup d'épaule boobu mu ko dóoree doyul la déedéet parce que dañu wax li li naan appui ak li naan déséquilibre booy Mame Balla dafa aligné woon ñaari tànk yi ñaari tànk yi dañ defoon nii. alors que ñaar tànk yi ne ñu ko def benn dafa ko nekk ci kanam benn nekk ci ginnaaw maam Balla ñaar tànk yi ñu ne defoon mu fël ko encore talon saa booy reculer yaa ngi nekk ci ñaan en déséquilibre la pointe du pied dafay servir athlète bi pour mu mën a avancer pour mu a riposter en boxe boo ko nekkee dañuy jàngal ngay taxaw sur la pointe du pied pour bañ a déséquilibrer ci tamit dafa valable ay ndax ay dëggu baaraam mooy tax nit am saisie talon boo ko tegee rek mooy dem nga pour daanu ji loolu nag kon Mati mooy jël bi nga xamante ne demal demal maam Balla demal daanu ji voilà jël bu leen nañ bu amul benn benn benn werante kon nag euh, ni leen ko rek euh, gisee euh, ni ko nag Moustapha sama consultant qualité décortiqué li nga xam ne rek moo di làmb mbay bawal ak ki nga xam ne rek moom moo di Mame la mu mel ni que ni lan nga ma mën a wax que ni maanaam bu buñ ne booy bawal dafa ci mëninam hmm. Mame Balla lan la def ba daal. Mame Balla déjà li nga xamoon ci làmb indiwu ko cette fois-ci dañ ko xamoon mbir mu sanguinaire bu ñëw di xeex ba mu gi sax ñu koy ji ñaan ko day maye mais maye boobu peut-être moo ko jig ma mati en général mbër da koy fekk ci li mu mën nga yokkal ko. mais doo ko doo ko tënk booy xool Mame Balla dafa tënku moral bi baaxul mantal bi baaxul mu ñëw taxaw seetaan combat bi fa ñu commencé ba fa mu jeexee mati ba léegi gisoo benn action boo xamante ne moom la Mame Balla def te pourtant nag. Euh, Mame Balla ñu ko loolu donc c'est loolu fan la ñu indi mat yi fi ñu indi mooy mbër bu nekk rek dafa am mëninam saa ba bàyyi sa sa mënin rek am problème Mame Balla dafa daan ñëw xeex bëre def échange ceinture mais tey dafa ñëw ñu ne ko booy bool da lay song mu tënk boppam mbër ma lay song mat nooy def ak moom ka lay song da nga koy dóor pour di la song dëgg la donc man gëmoon naa ne message làmb ji mhm. tant que Mame Balla dafa gën a wàññi Mame Balla exactement Mame Balla booy xool euh, moom moo ko doon am moo waroon na yóbbu gën a am confiance moom mu gën a perte moral parce que Boy Baol tam bu leen fàtte dafa communiqué woon ne léegi dafa jàng xeex day xeex ak Mame Balla mais ba mu koy wax pour lan la woon xeexloo ko ko trompe vigilance am dem daan ko tey ji nag li mu am na ko sonn gi sax booy bool booy xool daan na combat bi am ngi sax battement de cœur amu ci benn coono. nga xam ne moom la booy bawal daan maam baax daf may fàttali jëli bu yàgg sax. muy hmm. jëli bi nga xam ni moom la ba booy daanoon ki nga xam ni bàll bay un nag laa wax daanoon lang saane. ok ah, ah. ah mais Mati. waaw mais Mati boobu de xam naa kon. waroon ngaa bi ñu jàppantee vraiment dafa àll ñu ñaar tànk yi comme comme ni ñu wax rek. waaw ñaar tànk yi tegu rek mu mu bëma ko mu dem daanu ji parce que amul équilibre problème am na jël yoo xamante ne. kon na nga bëgg a wax que ne ñaari tànk yu aligné baaxul ci ku nekk ci combat. ngay xeex baaxul ngay bëree baaxul dafa am buy jiitu am bu topp ci ginnaaw. Mhm. bari na fi xool Yékini bi muy caxabal Bombardier. waaw dafa aligné ñaari tànk yi. bi bi bi Balla bi euh, numéro 2 di jël tànku Bombardier. Balla Balla exactement. dafa fekk mu aligné ñaari tànk yi ba tey mu wàcc jël benn tànk bi. am na beneen fi nekkat encore barki démb moo Ndiaye Eumeu Sène. mais Eumeu Sène bi muy caxabal roi des roi des arènes exactement mhm. benn def benn bi waxuñu def benn bi ci ginnaaw bi def benn bi un peu en retrait vers ta gauche gauche nga jiitalal droite bi jël gauche bi indi ko nii. kon nag ñoo ko gisandoo loolu leer na ci diggante Mame Balla ak Boy Bawal leneen li ñuy def moo di xooli affiche bi nga xam ne moo dox ci diggante Santa ak nga xam ne rek moom moo di Yanda dem xooli ko dellusiwaat. man la santaan ñi nga ñu gën ma xamee si le tigre de Yoff ngi préparé suma combat suma diggante ak Yanda bu paax seen mbooloo ñu war ko bëree incha allah le vingt cinq janvier muy samedi prochain si kantanu yàlla. performance am yu mujj moom gis naa ko gis naa na mbër la boo xam ne day attaqué ba pare di bëre heure bu la dóoree gauche droite dina daw song la donc mu nekk un jeune bi nga xam ne il est compétent te gëm na li muy def donc cause pour laquelle aussi man man nangu ko gestu aussi pour bëre ak moom et je m'attends aussi difficile cause pour laquelle aussi préparation bi. nekk préparation bu intense bu doy waar parce que combat la boo xam ne ak lu mën a am aussi j'ai pas droit à l'erreur gagné ko rek mooy li ma war donc te maa ngi liggéey pour gagné ko incha allah si kàntanu yàlla. waaw damay préparé ci ñaari wàll yëpp comme euh, ni ma la ko waxee comme yàlla teg aussi daf ma sédd ma nekk ndaw ñaari réew am tànk bu ma taxawee ci yoof taxawal fa écurie yor fa ay rak yoo xam ne tey xëy na bu doon écurie boobu tey mënoon nañ def ji leneen. donc yàlla dimbali ma ci kaw écurie boobu ñoom ñëpp ñoo am amuuru làmb di bëre donc tey mënatuma dem mukk wan leen ginnaaw il faut ma taxaw assister leen gunge leen ci kaw expérience bi nga xam ne moom laa am. bu dee ci Bombardier aussi maa ngi fay dem di préparer wu parce que ki la jàppale moment ya muy jafe bi ñëpp nee dootul sotti dootul dem mu ñëw woole ne la taxaw kaay taxaw sama wet di nga dem kaay ma jàppale la parce que dafa am lu la manqué kooku jàppale aussi ba àdduna yëpp ñëpp mën la ràññee xel aussi ak ngor. waru la may aussi nga won ko ginnaaw cause pour laquelle aussi tey mënatuma woon Bombardier ginnaaw maa ngi si wetam te tant mu ngi si biir làmb incha allah damay des si wetam waaye du tey na mukk je continue à être tigre de Yoff di sillonner aussi si ñaari équipe yëpp te yàlla mu may dimbali fu ci nekk maa ngi ciy def li ma war def ci kàntanu yàlla quoi. man la Yanda nekk équipe parcelle mbooloo. cent li ma mën a wax si moom bëri waaw champion la mbër la comme yeneen mbër yi ma doon dajeeg ah. waaw mbër la comme mbër ma doon dajeeg incha daal mun naa ne li ñu doon wax yëpp bëri na te des ay jours yu néew la mu nañ ni suba la kon wax ji jaratul muy bëri incha allah dama ñaan yaar rek jàpp ko daan ko mu gaaw daal. day ñëw ragalul musul wane ragal nag te yaakaar naa ne man man mi tuuti mii du tax mu wane ragal. waaw fit la mos a bëree ak jom ak fulaak fayda kon na ñëw def loolu ma def loolu man tamit fit ak fayda lañ ma xamee ñu ñaan ñëpp wane fulaak fayda Sénégal kenn ba ñoo jëpp ñu bëre ko si gaaw incha allah yàlla may ma def xam ma bëree moom daanaka fekkee da nga ko tarbiyu jàng ko mbapat yaa naan fu la bëre fekk rek nga bëre te naa yaakaar ni yàlla defal na ma loolu bëre fu ma fekk rek ma bëre ndam nag yàlla moo ko yor mun ngaa ñëw indi lii fekk fa lee mun ngaa ñëw indi lale fekk fa lale mais incha allah xam naa ne suma entraîneur ngañ maam les ak lato lépp lu ñu ma war a préparé préparé nañ li ci des nag incha allah man maa ci des xam naa ne bu ma jël see non loolu laay xaar. kon nag ñoo ko gisandoo dañuy njëkkee ci ki nga xam ne moo di Santa mi nga xam ne nag mooy borom mbuur ku ne mbuur ne Bombardier ku ne Santa it ne Bombardier ne mbuur ci moom lañuy ñuy njëkkee euh, euh, gis naa ko mu nekk ci en mu nekk ci format ah. Oui, euh, euh, Santa, déjà, euh, c'est un lutteur intellectuel. Mm dafa baax. ba pare xam na naka la ñuy entraîner parce bu ñu ñëwee ci xale yi dañu leen demander lan la ñuy def ak lu ñu bëgg a def bàyyi leen ñu libre bu ñu jëmee ñu rectifier leen Santa bu ñëwee dafa def li ñu naan zéro faute dafa ñëw commencer par corde à sauter yaram bi. yëngal yaramam yaram bi def dafi euh, Euh, presse presse oblique jóge fa dem dem tiire ji encore li ñu naan poli def ay épaulé donc ça veut dire moom xam na li mu liggéey déjà donc il est en bon état de forme je pense que ne yi mu jóge ci combat yi mu jóge nii. Euh, carrière waaw parce que tegle na ñaari défaite. ba pare li muy encaissé ci ay coups dafa bëri donte nag kenn dootul naa table li nga xam ne moo di nekk ndaanaanam. exactement booy xoolaat. Euh, Euh, fekk naa ko mu jël coup boo xamante ne contre Colifay mm. dafa daanu gi sax ba ci kaw caméraman je maa <laughs> mu ñëwaat ci combat boobu uh-huh. même combat ko jox nag aussi adversaire boo xamante ne mën nañu racheté wu su ci amee ndam encore li nga xamante ne moom moo arrivé woon euh, moo ko arrivé woon ci biir carrière am quand même Mati mais Yanda tamit ku naqaree bëri suñ ñëwee ci moom Yanda Yanda bi mu ñëw tey Mati da nga gis ne dafa liggéey li nga xamante ne moom mooy euh, euh, tour de stade pendant vraiment 15 minutes. c' est maanaam wër stade bi. bi tour de piste bi 15 minutes commencé def ay série 200 mètres ak 100 mètres. mais si ma ko gisee nii dafa mel ni koo xam ne que ni dafa lu ma ne dafa gën a ngand mais dafa gën a am doole. dafa daaju. waaw dafa daaju fi toll nii boo ko dee xool mooy maanaam koo xam ne dafa dafa. këx la. Mm-hmm. këx nag ñu ko waxee xam catégorie de personnes yu koy xam. Mm-hmm. ak ñu ko xamul mooy ko mm-hmm. xamante ne daal dëgër na ci kaw dëgër ci suuf euh, bien na quoi mooy mbër mu këx donc ki euh, euh, Yanda bu ma gis nii dafa këx ci bëre këx ci entraînement. gis nañ séance mu def séance yi mu def aussi c'est important parce que à quelques jours de son combat mu def ay 200 mètres 100 mètres yéeg def ay déplacement def étirement c'est hyper important moom nag je pense que ne. ci la jógee la jógee. ci ndam ci ndam la jógee. waaw 50 Cent la daan. léegi nag chance moom mooy. waaw boo daanee 50 Cent su ma euh, ki nga xamante ne moom mooy. Euh, mooy Santa ñu nga mhm. daanee Santa daf la day mën a dugg nag day mën a fekk ji ki nga xamante ne moom mooy chef de file muy Moussa Dioum bokk ak moom ay catégorie loolu mooy chance am. nga xale bu bëgg a la ak mag moo xam ni euh, dafa amoon teq-teq bëgg a jugaat. exactement ah, mu nekk nag combat boo xam ni. buñ ko waxee ak buñ ko waxul yëpp combat bu nar a neex la parce que ñoom ñaar ñëpp boo ne pare nañ exactement ci loolu moo di suñu gan tey jii ci Leewtoo nekk nag euh, honorable député Seydou Diouf Seydou Diouf nag nekk président fédération handball nga xam ne nag waxtu yi ñuy waxee ak yéen wala nag waxtu yi ngeen ñuy seetaan hmm. ñoo ngi bitim réew di jaa jaay li nga xam ne moo di drapeau Sénégal li nga xam ne moo di wàllu handball waaye rek ñu ànd seetaane ko li mu ñu indi tey jii ci li nga xam ne rek moom moo di Leewtoo man Seydou Diouf président fédération sénégalaise de handball. luy sa xalaat ci powum lamb mi gone yu jugtoo ñu di ko seetlu sax ba ci biir daara yi. waaw influence su làmb de manière générale ñu ne tey euh, lamb nekk na benn facteur de développement économique parce que ci làmb ji ak li wër lamb ji yëpp boo ko naree saytu di ko xool ci am na impact bu am solo bu mu mën a am ci économie nationale. Euh, souvent d'ailleurs bu ñuy analyser dañ koy yemale rek ci mbër yi mais xam nga organiser un spectacle aussi euh, ak li muy jël di nga ciy dépenser ak ñi fay ñëw ji jaay di activité ak yooyu yëpp dafay dundal activité économique donc làmb am na euh, impact économique bu am solo. gëm nga ni làmb ji di suñu cosaan mën nañ koo yóbbu fépp ci àdduna bi ba ñëpp mën koo xam. man sama gis-gis jàpp naa ne làmb bu exportable la. Euh, li tax ñu wax loolu mooy tey dangay gis ay nit jóge bitim réew di ay tubaab yu weex tal ñëw di ut licence fii di bëre ñu ngi wax ay ñoomu xool ñu ngi wax leneen euh, ñaareel bi euh, xool naa weer yi la ñu génn mu am benn combat boo xam ne TFM mu ngi ko organisé woon fële ci Bercy mu nekkoon un grand succès. noo jàngatee tolluwaayu làmb ci fukki at yu mujj yi. évolution boobu dañ koy euh, man dama ko dama ko rafetlu ah parce que euh, wax naa ko sama benn wax làmb yàgg na ci réew mi waaye dem nañ ba xale yi seen bopp ñoo ko professionnaliser te ci loolu mën nañ ci rendre quand même hommage ku mel ni Mohamed Ndao Tyson ku mel ni suma xarit Yaxya Diop Yékini parce que ñooñu très tôt dañu xam ne li ñuy def nii léegi spectacle la comme ni ñu koy waxee business la donc ñu ñu jox ko àq bi mu yellool ba pare jéem a teg un dispositif organisationnel bu leen di permettre ñoom aussi ñu préserver seen ay intérêt bëri ana luñ ci mën a seetlu moo xam lu baax mbaa lu bon point positif yi bëri na parce que tey am na ci ñu bëri ñu ngi dund ci làmb ji wax nañ ko làmb léegi spectacle la quelle que soit discipline sportive boo mënti bëgg bu ñu nee combat bu mag am na dafa mel ni Sénégal mooy taxaw ñëpp toog di déglu donc loolu ñun ñëpp tey ay passionné de lutte lañ ah même si buñ dul seetaani làmb ñun ñëpp tey euh, ay passionné de lutte loolu c'est positif parce que dem nañ ba léegi li nga xam ne mooy suñu moomeelu bopp ndax football dañ ko jéggaani basket handball bi ma jiite dañ ko jéggaani waaye làmb ñoo ko moom kon bu demee ba tey ci xelu xolu sénégalais yëpp combat bu rëy bu amee. ñëpp mel ni réew mi dafa taxaw ñëpp ne tekk di déglu loolu mooy sénégalais yi intégré nañ làmb c'est extrêmement positif. loo xalaat ci mbër yi lëkkaloo ak politiciens yi. sportif du doon mukk militant lëkkaloom ak politicien bi rencontre du moment la rek parce que politicien bi dafa bëggu am ku am tour sportifam sportif bi aussi bu xasee ba yegg fenn fii am lu mu soxla yaakaar na ne policier mën na ko defal xam nga lëkkaloo boobu kon euh, du lëkkaloo boo xam ne dafay wéy parce que ñi ñi ñi ñi doon ànd démb ak politiciens yi fi jóge tey ñu ngi ànd ak politiciens yi fi nekk ëllëg dañuy ànd ak beneen politicien bu fi nekk donc képp kuy politique war nga sóor loolu loolu terewul nit mën ngeen màggandoo ci gox séq jàmm ci gox avant que ngay doon politicien moom muy doon sportif donc loolu aussi boo leen demee ba nekk politicien ke nekk sportif warul yàq seen diggante. jaajëfal ko bu baax a baax honorable député Seydou Diouf jaajëfal ko ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ fekki woon fa nga xam ne moo lañ ko fekki ah sargal ñëpp ñi nga xam ne ba tey rek ñu ngi bàyyi xel seen émission L'Oeil du Tigre mooy woy ba tey ci télévision Futur Média ma àndi ci ak Moustapha Guèye sama consultant fiscalité damay ñëw yow ci combat bi nga xam ne wala affiche bi nga xam ne moo euh, taxawal ki nga xam ne moo di Modou Dia ak Cheikh Ngiraan donte nag amuñu Cheikh Ngiraan am nañ ki nga xam ne moo di Modou Dia ah. Modou Dia ak Cheikh Ngiraan ñooy bëri dimanche. waaw Yanda ak euh, Santa ñooy bëri samedi. Mhm. exactement mhm. donc am nañu Modou Dia. waaw nañ dem xool ko ñu dem xooli Modou Dia dellu si waat. salaamaaleykum man la Modou Dia écurie Yoff di préparer sama combat ak Cheikh Ngiraan jàpp naa ne mooy sama première komba One of them walk down and some of me, you say, Accelerate! Stop! Back! I'm gonna be putting Stop! Back! Orang kami in jump, in jump, bentak maju. Ah, lebih, kamu tu jump, sekitar tak? Jump, masuk. Dua, tiga. bi mooy sama première saison bi mooy sama premier combat ma war a daje ak Cheikh Ngelane bëgg si moom daan ka rek seetaanu may combat am lu bari mais am na yu ma seetaan waaw de manière xam nañ ne xeexkat la quoi te et puis na bëre torop ndaanaan la mbërum mag la dafa may sens tey ji mais may la sens sam pas dire que daf lay may pour nga daan ka dama war a liggéey lu ko daan bu ñëwee day gën a yomba rek bu ñëwee bëri ak man day gën a yomba bu ñëwee xeex ak man day gën a yomba rek. zéro parce que tey jii kuy bëre rek ñaan nga yàlla bëree ki fi sës xam nga mais comme bu ma dooree commencé dugg si ñoom dama koy sant yàlla bu baax ma xam ne maa ko doon ñaan et puis am na quoi bëre ak ñoom tey jii maa ngi bëre ak Sengiraan ndam moo am yàlla moo koy may maa ngi koy ñaan mu may ma mais Modou Dia ma gis nii jël na poids de. exactement. Modja aussi euh, dafa ànd ak ñun liggéey ak ñun fi ñaan ci pelouse stade de l'amitié bi yéegul gradin dafa def ay travail yoo xamante ne ay de d'assouplissement la li ñaan ay lu ñu naan éducatif la def yee yaram bi ñëw taxaw wax ak ñun ma gis nañ aussi c'est un jeune espoir bi nga xamante ne mbërëlewu la yàgg a bëgg bëre toj mbapat dugg arène bu dugg arène ba léegi aussi macha allah mu ngi def benn carrière bu nice mu ngi daan ba daan ñoo xam ne sax fooguñu leen woon. tam mook Santan ñoo bokk ñoo bokk écurie. exactement xam nga Santan dafa dafa dafa séddale. waaw dafa nekk Mbour moom xale yooyu tamit. bokkoon na ci nga xamante ne référence la ci ñoom. ba tax ñu bëgg a bëre. ba tax Santan sax encadré leen. booy xool séquence moom santa moo doon diriger ñi nga xam ne ñooy Modja seen séance d'entraînement Modja bu ñu nekkee ci làmb ji ba léegi boo gisee. mais combat am ak Jet Li fa bu yàggul dara décortiqué ko ko fii. Euh, mu nekk combat boo xam ni macha allah. mooy bi mu ko sentiree. waaw bàyyiwu ko. waaw bàyyiwu ko di liggéey ci tànk yi di kal gauche di cale droite ba mu ne gàng a ah, je me rappelle très bien c' était une vraie un combat. Mhm. boo xamante ne combat technique la woon. waaw ah un boo xam ne mati mbër boo xamante ne fu mu jàpp du ko bàyyi te daanu woo mhm. moytul ma ko. moo jaay ci genre mbir yooyu la bokk. te waxoon nga nañ ko nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. te léegi nag ni mu tolloon boobu. ni mu toll léegi du moo tax mu jaaxal ma bi ma ko gisee euh, maa ngi lay laaj ndax kii Modja bi ma gisoon temps yee passé ak Modja bi ndax benn la. je lui ai posé la question ko mais Modja <laughs> da nga da nga am masse mu ne mooy damay liggéey fi nga doon liggéey lay liggéeyee mu ne ko fooy liggéey mu ne ko père Habib Guèye moom yor a nga Habib Guèye nag mu ne yow fi nga doon liggéey fële liggéey waaw wax na dëgg carrière waaw bi ma tollee ci atam ma toll ni moom waaw Habib Guèye maître Habib Guèye mm-hmm. mi entraîné Toubabou Dior entraîné Birahim Ndiaye entraîné Amadou Kati Diop entraîné Mbaye Guèye Tigre de Fass ak ñoom Mame de ce jaar nañ ci foofu boobu salle bi nga xamante ne mooy salle Habib Guèye moo tax ba pare ci victoire la jógee boo ko gisee métamorphosé wu bett mën na ko ah fi nga nekk de jàppal te bul donc ñu nekk ci kër gu baax il est bien physiquement te dama ragal na sax bu ñëwee ki làmb mooy moo yëpp doole ki nga xamante ne mooy xalifa ngiraan xalifa ngiraan nag gisuma ko Cheikh Ngiraan Modou Dia euh, Cheikh mhm. gisuma ko mhm. mais Modou ma gis da naqal yëpp doole fi mu ne nii ci combat bi d'accord loolu dinañ ci ñëwaat euh, dimanche la combat boobule benn fan moo dox suñu diggante moom ndax nag tey la ajjuma waaye nag mu ngi bëri ak ku mën a xeex ndax nag Cheikh Ngiraan ku ko xam bu baax a baax xam ni moom itam da ngay laaj Papa Sow wala nga laaj Batika ñaar ñooñu yëpp ay xale yi paas nañu Cheikh Ngiraan bu mu ñoom teg na leen coono ci ay dóor yoo xamante ne dèjà sax Cheikh Ngiraan day perte ay combat yoo xamante ne ay dóor yu métti koy perte loo. te it làmb ji kenn ëpp ko ci fit. déedéet non guerrier la Cheikh Ngiraan c'est un sanguinaire mais nag boo nekk loo nekk nekk guerrier nag boo amee yenn combat yi nag da ngay fagaru ko ne ah man kat damay dóor di dóor rek ñu may daan. déedéet léegi nag damay wàññi dóor yi. del jàpp di bëri je pense que ne combat bu neex lañ jëm. <laughs> mati ci diggante li dal Yanda ak Santa moo dal kii di Modja xale buy jóg bëgg a dem te nangul mag mu ko téye. kon mën naa ne combat bi combat bu neex lay war a doon. combat samedi bu leen jël tollanti ko xeexkat la ak bërekat waaw mais Modja attention Modja aussi. Euh, day xeex bu leen bu leen mukk. Mhm. gis mbër daawul xeex ngeen ne du xeex ba bis mu ñëw xeex. dëgg la ça nous arrive Modja ci boppam yëkkati na kàddoom ñu ne moom. combat bi sax dafay ñëw pour xeex si sax xeex la bëgg parce que dañ koy jàng ay xale lañu lu jàng dañ koy a tari donc ñu séntu na Modou Dia bu ñëwee dina xeex ak ak Ngiraan te dina bëri aussi ak xalifa Ngiraan foofu la ñuy taxawandee ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di allo docteur allo docteur nag tey jii ba tey dañ ci ànd ak rek professeur ne moom itam ba mu jàppee ba tey bàyyiwul ah, ànd ak nag ñi nga xam ne ñoo di waa l'œil du tigre tey dañuy ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo di hépatite virale ànd ak moom seetaani ko dellu siwaat ak yéen suñ waxtaanu tey nag euh, ñu ngi koy jëmalee ci feebar bu ñuy wax hépatite virale hépatite virale bari na façon ñaar yi gën a indi lor mooy B ak C waaye ñun hépatite viral B moo ñuy gën a indi lor feebar boobu kaa euh, yi nekk ci àdduna bi ñu ngi ko xayma entre deux cent quarante ba trois cent cinquante millions ñi ko am de manière chronique ñoo xam ne ñu ngi ko am tout le temps dépassé na sii mois bi ñu ko amee feebar la bi nga xam ne fii Sénégal ëpp na huit pour cent nit ñi ñi am feebar bi de manière chronique donc feebar bi lu bëri la Sénégal feebar bi benn virus moo koy indi transmission bi. bëri na façon mun na nekk infection sexuellement transmissible comme feebaru néegu sëy waaye ñun fii ñi ëpp liñ ko am dañoo judduwaale feebar bi seen yaay amoon ko ñu am ko wala ñu nekk xale biñ nekkee xale am ku leen wàll feebar bi loolu lu soxla xam la parce que si suñuy liggéey léeg lée nga gis euh, nit am feebar bi jëkkër ji am ko jabar ji amu ko wala jabar ji am ko jëkkër ji am ko lu nekk ñu di ko xalaat fekk kenn si ñoom bi mu juddoo la am feebar bi waaw donc loolu ñu bàyyee ko xel du feebar uniquement feebaru négocier Europe loolu la gën a nekk waaye ñun fii loolu bokk na si waaye du loolu la gën a nekk donc feebar bi comme infection sexuellement transmissible ñu fàttali rek ne moyen de prévention infection sexuellement transmissible def si baax. te mu waxoon ko ci émission yi passé xam ki ngay nekkal soo wóoluwul nga moytu utiliser préservatif waaye fii it dañu am beneen arme bu am doole mooy vaccin ñàkk bu efficace am na ñàkk bi ku ko def feebar bi su fekkee ñàkk bi baax na feebar bi mënu laa dal eh, damay profité nag pour wax ne ku ñàkk sa ñàkk da nga war a vérifier ndax efficace na ou pas ñi ëpp nag dañuy ñàkku duñ vérifier dañuy dem ne jënd naa sama vaccin def naa ko jeex na mais soo ñàkkoo mun nañ def ay analyse xam ndax analyse feebar bi euh, sa vaccin bi dina la si aar walla déet te loolu am solo la ndax feebar bi ni mu fi bëre jaajëfal ko bu baax a baax docteur wala professeur Seydi sargal ko ak ñi nga xam ne ñoom la nekkal ci hôpital ba sargal ñi nga xam ne docteur yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi ñuy seetaan parce que ñoom ñëpp dañuy bàyyi xel li nga xam ne moo di ak yi nga xam ne demaguñ ci ñoom waaw waaye jàpp leen yéen ñëpp daañ leen seet si incha allah parce que nag wér-gu-yaram dafa soxal li nga xam ne moo di mbër rawatina ki nga xam ne day toog di seetaan li nga xam ne moo di émission bi nga xam ne moo di l'Oeil du Tigre Moustapha ñëw nag ci li nga xam ne nag mooy coow li coow Mhm. ah le 31 janvier la ñu jàpp li nga xam ne moo di combat bi nga xam ne fomb nañ ko fombati ko. Mhm. mu di combat bi nga xam ne moo di combat Modou Lo ak nga xam ne moo di Eumeu Sène. Mhm. di combat boo xam ne combat bu doy waar la. Euh, talaata amoon nañ open press ak nga xam ne moo di Eumeu Sène. àllarba amoon nañ open press ak nga xam ne moo di Modou Lo. Euh, déjà. Sénégal yëpp ngi coow état de physique bi mu yore. ñi naan ëpp na ñi naan ëppul. Mm. moom dama naan ëppul. parce que Eumeu c'est un technique. qui joue sur ses déplacements. dem ba léegi nag mu comprendre dafa war a song muy song te boo ko songee mu bu la songee nga bëri. Mhm. donc kooku poids bu mënut a amee. aussi te ragalu nit dóor. du ko indi si at ah, bu doon rek bu doon ragal dóor ko mu daanaka moom combat yu bëri yu mhm. dafay verser du sang doo ko doo ko dem daani. dëgg la gis ngeen ko combat ma Gris gis nga combat bi passé mhm. ay combat yu métti la def et puis bon ëmb foog gars yi bàyyi xel ne. dafa bokk ci mbër yi nga xamante ne dafa mel ni koo ñoo waaw mbër yi nga xam ne ñoo gën a métti combat ci arène bi. carrière bi métti la am seen vraiment. Mhm. moo tax actuellement situation bu mu toll ci làmb. Mhm. ñu bari dañ ko ko yéene parce que foo gis dafay reetaan dafay kaf dafay ree day bëre. a ah, ak carrière bi mu def aussi ñi mu bëreel dafa yéex a yow am seen a yow ci làmb ah mais ñi mu daan aussi dafa daan ay qualité quand qualité yi daan ci lamb bi ngi nekk booy xool ñi mu bokkal jamono. ay su lay dog kenn amu ci qualité le roi des arènes tey. exactement. ah euh, daan ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux. la de guerre. numéro 2 ah daan. Euh, Ousa Sow mi nga xam ne euh, bëreem kenn dootu ko naataale ci biir Sénégal ay qualité la daan ci lamb bi ah Mbaye ci ay jamonoom. ay qualité la ah, bari na ñoo xam ne nag macha allah. Ah, ah, moom sax bu ñu neexee ñu woowee ko le roi des rois parce que moom rek mooy ki nga xamante ne moo am na bokk na ci ñi am victoire ci kaw le roi des arènes. dëgg la waaye boobu combat dina ñëw waaye ca kanam tuuti. ca kanam gën a ñëw quelle que soit situation. moom Eumeu Sène. Mhm. am na benn bor mu amel. waaw Balla Gaye mu ko dee le roi des arènes. Mhm. xëy na dans le futur dinañ dajawaat mais actuellement daal mooy ki nga xamante ne moo daan le roi des arènes. mais gisoon day taxaw samp jànk nga dóor mu dóor uh-huh. day laaw uh-huh. day sànni gauche di uh-huh. sànni droite laaw gauche ba mais yaakaar naa ne aussi loolu tamit ah, expérience am war na ko may du ko defati muy sànni ay coups yu normal même bu ko dul dëgg ci moom it koy sànni mu normal moo wartu toll ci lam fu muy sànni kurpañ muy moy mais li ma jaaxal mooy open press bi nga xam ne def na ko mardi ci biir entraînement rek toj na R4 kenn ci ñi nga xam ne ñoo doon ñoo ñoo ñoo ñoom la doon entraîner ci entraînement rek ah. waaw. allah nag attention. si vous plaît. Euh, puissance ci biir entraînement rek laa la wax. ma gis ci moom. ak uh-huh. ak ba dafa am biceps yi dañoo court. waaw avant bras yi moom ay épaule. Uh-huh. donc force de frappe bu ñu koy wax ci ci bi. Uh-huh. dafay force de frappe bu ngi jóge ci triceps. di jóge ci épaule. dëgg la yàlla dimbali na ko ba muy pousse plus de 200 kilos ci épaule. waaw donc fu mu dal war na dagg bu daanuwul. dans la logique léegi nag su ma ñëwee ci gone ak Parcelles Assainies ji Ababacar Mbaye ku naqaree bëri. Mathieu li ma bëgg wax ci ci Modou Lo. dama mhm. bëgg yi bàyyi ci xel baax a baax. Modou Lo ba mu commencé bëre ba léegi musul bëre ak moom ku mu bëree yaa ko sut yaa ko ëpp. dëgg la et chaque fois moom la maanaam dañuy jox favori ki nga xam ni moo di adversaire am. mu intelligent léegi xam ne moom mi tamit. Mhm. dafa jot pour mu dem tolli ni gars yi mu dem tolli ko nag ci yoon nag quand même ah. gis ne dafa évoluer nank ndànk rëyul trop ba ñu naan kii kii lu mu naan mbaa lu mu lekk attention loolu dafa jot c'est important ah. da mu am ay muscles bien am ay pectoraux yu baax macha allah am biceps yu baax am ay épaule yu baax am aussi tànk yu baax pour taxaw mu ne résister ñi nga xamante ne ay cent trente cent quarante kilos la ñuy la ñuy pesé fi bëgg ñëpp ay cent cent trente cent quarante jox la ci benn combat rek mu di combat ak nga xam ne moo di Baye Mandione. contre Baye Mandione nag gis nga moom Modou Lo bu ñëwee jéemul sax xeex dafa ñëw joxoosu ko ànd ak moom indil ko bëre. dëgg la c'est important ak poids bi ak gabarit bi nga xamante ne moom la Baye Mandione amoon mu jaar ci poxotaan yi def volte face génn. combat am ak Gris Bordeaux combat am ak Gris Bordeaux dafa ñëw gis bëgg Gris Bordeaux indi masse boo xamante ne jaxal na ko Gris it était venu ci combat bi nekk dans les cent quarante kilos moom na il s'était bien préparé bu mën a dékku cent quarante kilos yooyu mais gisoon ni combat bi xeex moo ko arrangé boo ko ciy génnee ba si su buggee daan kii mu ëmal seen mbaa su ko bëggee sonal foog mu indi ko xeex pour bëreeg moom waaye tam topp xeex ba tamit ba Eumeu seen àgg ko foo xamante ne a ko faag tamit. mu ne ko mais Modou Lo tamit bul fàtte ni xeexkat la ndax ne nañ moom moo dàq xeex kuy xeex. il a un crochet droit meurtrier. door na ci Boy Kaïré. xam dañ ne loxo ndajoor. waaw mooy loxo bi am doole. mais laaj ko Boy Kaïré. moom la ñuy wooyee loxo bi nga xamante ne mooy loxo bi naan dafa am ndajoor bu xor. macha allah tubarkalla catuma ko. mais bu la ko dóoree épercute. Mhm. mun nga am problème. bu la ko dóoree crochet mun nga am problème. Mhm. te coup coupé nag ñaar rek la moo mën a nekk nag ci ki nga xamante ne euh, pied gauche gittal pied gauche yor crochet droit crochet droit la mun dóor nga am problème mbaa mu dóor la épercute nga am problème. kon nag si noonu la ñuy jaaree mu di combat ñaari technicien ah incha allah le 31 janvier lay doon ñu ànd ak yéen ba tey rek euh, dem seeti li nga xam ne moo di sunu zapping dellu si waat ak bu Fatick la nu jàkkaar lool Djily Mbaye bu faas woon ñu ginnaaw ah laa ilaaha illallaah Djily Mbaye daf ko teq ñu ànd dem ca suuf lu arbitre yi wax lu arbitre yi wax lu arbitre yi wax Djily dafa teq tànk ba bës ko ñu ànd dem Jokkel bu Fatick am na ndam Jokkel bu Fatick am na ndam Djily Mbaye moo teq waaye kon ñàkkul na nu yeggee ca suuf la combat baa ngi noonu.

arbitre bi sifflé na Yékini Balla Gaye jaw na doon Yékini Balla Gaye ak Yékini Balla Gaye ak Yékini Balla Gaye war na na ko ndomb ba ah ah. waaw nekkul woon ci man ci côté la yàlla dogal na mi nga xamante ne dara tëwu ko taxaw na li des man ak moom suñu kanam la nekk nekkul suñu ginnaaw ñu fas yéene wax ak jëf aussi tamit c'est important. Il y a de l'incertitude, il, y a, il y a des... Au départ, euh, on ne sait pas qui va gagner. On voit que ce sont des champions euh, euh pratiquement invaincus euh, sur les championnats du monde. Euh... Lamine takk na ko L'an 2000 takk na ko la ilaha illallah L'an 2000 waawoon bébé Saloum daf ko bëgg a caxabal caxabal ak biir bébé daf ko bëgg a caxabal l'an 2000 daan na daan na bébé Saloum. Ça c'est le premier voyage au tapis. Puis le coup il est parfait, hein. il est à la bonne distance, ah, il y a le transfert du poids du corps. Ça s'appelle un contre. Sur une action semi-offensive de Bello, il y a le gauche qui part en même temps. Boum. Et on sent les jambes se dérober. Et là, La très bonne intervention de l'arbitre. wala ah mu cokkaas Bombardier mépp na jege woon noonu Bombardier Gris Bordeaux songoon noonu Bombardier amul fu mu jàpp de Gris Bordeaux ngi dóor Bombardier ngi dóor Gris Bombardier Gris Bordeaux daan na Bombardier. Un air de teranga souffle sur les berges du Vouri. Le temps de la célébration du Ngondo, la lutte traditionnelle trace son cercle. Rien à voir avec la lutte sénégalaise. Les coups de poing sont interdits. Juste un jeu de bras et la recherche permanente de l'équilibre pour être déclaré vainqueur. mbër yi léegi ñu si bëri mbër yi petit combat yi dañ leen di jox ay billets ne leen dem leen ngeen jaay ko euh, pour mun a jël seen avance léegi booy tamit pour wane seen bopp. dañuy indi dañuy jox seen waa koñ ay billets ñoom ay fans club la ñu doon seen waa yi dong moo leen intéressé ñooñu bu ñëwee ki nga xamante ni moo tax ñoom ñu ñëw fi su daa su bëree ba pare dañuy dem dootuñu fa defati dara. jaajëfal leen kon tey loolu lañ leen indil ci li nga xam ne moo di sunu zapping sargal nag ñi nga xam ñoo nekk sunu ginnaaw tey nag euh, borom <laughs> Augustin moo fa nekk ak nga xam ne rek moom moo di Mansour Gueye Moustapha dañu dem seet tey ñaari ndaanaan yoo xam ne ñu ngi ci biir kër gi. Mhm. di nag duo de choc boo xam ne nag macha allah mu di El Hadj Abou Bilal ak nga xam ne moo di Ndiaye Ndiaye moom Ndiaye la daal Ndiaye la daal. waaw xaw ma njaay mu jar la xaw ma njaay mu mu jarul daal njaay la ci biir kër gi en tout cas merci à nos humoristes <laughs> oui muy ak euh, son nouveau partenaire li uh-huh. ñu télévision bi aussi uh-huh. lu <laughs> ñu ànd seetaani leen daa deen nag xaqataay tuuti neexal xol yi dellu si waat ak yéen man maa ngi tudd maa ngi tudd Ngor Ngor Faye laa maa ngi nekk ci dëkk boo xam ne ñu naan ko ndol-ndol Eumeu Sène nag def maa neex jom moo tax ma ñëw jël micro bi di ko jox ay conseil ndax man dama ko bugg te yàlla tax ndax Eumeu Sène tuddee na ko jom tuddee na ko fas boo xam ne bi ma ko tuddee ba tey Eumeu Sène mooy jël pe Eumeu Sène bi ma ko tuddee doom ba tey sama doom bi benn xale ci koñ bi ñemewu ko am na jom am na fu bi ma ko tuddee dom ba tey may xamal ko ne xale bi bu xëyee sax li muy lekk ci ceeb daf may jaaxal di ko ne ko waa Ngunjaan yëpp ak ndol ndol béy nañu ñaari sax yoo xam ne dina ko lekk ci bés bi ndax il faut mu wan gune gi ne ko ñun duñu ay ñu ndax koo xam ne danga jom jur sa entraîneur ba tuuru boo jàkkaarloo ki nga war a dul koy def rek ne fun a tegala géré tik na taxum homogène faaxa fak na ndik noonu no takam fa faaxa niko faaxa deg la kaw ko ndek ne homogène lam bi leen laa lay ñaan moytu lekk lu niin bandang bu lekk lu niin bandang de ko jàpp ci cere mbuum bi cere baase wara cere ndim soo ñëwee ba ndol ndol ñu may la laalo nga xam ne laalo ndol ndol soo ko tegee ci cere boo xam ne boo ci defee meewu nag bu ñu ratak bey hey boo jàppee moo doo ding ko xamal ne ko rek na faaxa ndig na taxom tak na gee ko faaxa tay ay uma ay uma dimbali ma waay daanal waay yóbbul ma booy bi ardo eh! yóbbal ma booy bi ar doo waay naa la xamal benn mbir laa ñoom ñaar kenn ku ne am na ci doole joo xamante ni foo ko weesu na fa moo loo Modou Lo day daan nag nga sa bopp ku ne Eumeu day daan nag nga sa bopp ñoom ñaar ñëpp kay noon faf ko fariñ kenn ku ne nga doole bu ñëw toll nii nii la nekk Eumeu Sène na doole ba toll nii la nekk kon ñoom ñaar bu ar bii ne firip ku ci yaakaar ni mooy daan sa morom kay noonu nag ku juum daanu de ku jum daanu barka yimmam bama ko jur daanu omo ceerna kay wurno doole joo kam tani dafa mer banque kam tani difa dur arbitam kay bimne ko tuyke er karbi dafa toj mumen daga jiru tammate raɗaɗo koye frof modulo joyi fole tamin noon degna kero bin taka dak noko joñde nako cuñ neko somomo tut bisba kay gina ala won kay ni daɗane kam fuur kay goor mo koye daf ɗin ala won kay no basi goor mo koye bay bo kero guenak sawawi ko juum danude nee naa la tamit ku xef képp boo mucc doo gis combat bi kay no kon yal nañu yàlla bay ba beneen yoon ba booba kam fu weere kay no <laughs> sargal bu baax a baax kooku di <laughs> Kouthia ak ki nga xam ne moo di njaay la dio de choc ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax di kontaan ci ñoom ah naan leen nag euh, bi moom ok ñu dem seet ci Ibakan ci statistique Euh, sargalaat ko ci lëkkaloo bi nga xam ne nag ba mu jàppee moom itam ba tey moom ak waa sunu lamb bàyyiwuñu mm-hmm. ak waa l'Oeil du ñu ànd ak moom ci statistique euh, tey di ñu ngi leen indil Yanda ak ki nga xam ne moo di rek euh, Santa Ñing ñu ànd ak Ibakan asalaamaaleykum mbokku téléspectateur TFM ak soppay L'Oeil man Iba bu sunu lam maa ñëwaat ak yéen di leen defal statistique ci combat buy dox ci diggante Yanda ak Santa Gning combat boo xam ne nag combat bu ouvert combat bu neex combat boo xam ne amateur bu ko tardé di nga manqué lu rëy parce que combat ñaari mbër yi nga xam ne kenn si ñoom bëggul ñàkk combat bi Yanda nag euh, palmarèsam nii la tëddee Yamba euh, Yanda 10 combats la disputé si 10 combats am na si 8 victoires pour 2 défaites euh, les 8 victoires de Yanda sont Yanda il a battu d'abord Cheikh Kane après Cheikh Kane mu daan Mamadi Seras mu jógee si Mamadi Seras mu daan Demix jël na mu jël booy bawol daan ko booy bawol bi daan mambal la daan na ko jël Cheikh Junior daan ko jël Boy Niang 2 bi nekk école de lutte Balla Gaye jël amaat bi nekk Lansar mu daan ko mujjee daan 50 Cent donc ce sont les huit victoires enregistrées par Yanda Yanda il a concédé de défaites les deux défaites de Yanda sont euh, Naaru Sogas et Papsen Naaru Sogas et Papsen ont battu Yanda donc le palmarès de euh, Yanda c'est c'est comme ça huit victoires pour deux défaites santa ñi ngi nag moom palmarès am nii la tëddee douze victoires la am 12 victoires pour 7 défaites 19 combats la disputé si 19 combats yi mu am si 12 victoires am 7 défaites. saat naa ñu ngi ñi la daan daan na jë jëyle jëyle daan na surumle daan na bébé Tyson daan na Umar daan na Samba Samba Lawbe. daan na Ndiassé daan na Batika ñaari yoon Batika bi nekk Fass daan na ko ñaari yoon daan na Géant bi nekk Fallaye Balde daan na Babacar Diallo daan na Fallaye Balde numéro 2 daan na Kolifay donc yooyu mooy 12 victoires yi nga xam ne kii am na ko Santa ñi ngi am na ko Santa ñi ngi nag am na 7 defet 7 défaites yi nii la tëddee Ibou Fall moo ko daan Toubabou Dior numéro 2 Papa Sow Jordan bu Taïchinga Super Étoile Yekini Junior ak Tyson numéro 2 combat bi laa leen andiloon maa ngi leen di jox rendez-vous vendredi prochain bu neexee yàlla Iba Kane jaajëfal ko bu baax a baax leneen li ñuy def moo di nag euh, Moustapha xanaa rek laaj la lu des. li moom yaa ma koy laaj dama ko laajaat <laughs> yëpp xam nañ ko revue de presse lañ jëm. jàngeen jëf combat Modou Lo Eumeu ci xët bu njëkk bu sunu lamb ancienne gloire bi di Manga 2 di ci addu Manga 2 gis ne amateurs yi dinañu bekk su accrochage amee. waaye yëf yi ci bëri dëgg lay mujje ci l'observateur beneen ancienne gloire di si joxe xalaatam daanaka li mu jox chance ci mu Lo bariwul fukk ak juróom ci téeméer rek la euh, Balla daal li mu gis mooy Eumeu Sène moo gën a taxaw physiquement te tamit moom moo gën a stable kii di Mamadou du Mamadou Kandji mel ni ku dëggal euh, loolu waa ji ne euh, bi ko Eumeu Sène dóoree euh, mënatul woon sax dox lenn moom am na mystique fës loolu ci combat bi ba ci sax euh, bés bi waa sport ne ñu loolu moom moo waral Aziz Ndiaye promoteuru combat bi fixé bésam boobu ajuma ngir rek mën a muslu ñu jeexalee ko ci coowal stade Demba Diop bi ñu nar a tëj populaire di ñu xamal ni làmb ji euh, mi ngi ci njàqare promoteur yu ci mel ni Gaston Mbengue wala sax asis Ndiaye nee nañu dañu dugal seeni koppoor ci ay combat euh, yu ñu nas ba noppi. kon nag loolu lañ leen indiloon tey jii ci li nga xam ne moo di rek yéen kaay xëy bind ci wàllu lamb Moustapha émission bi jeex na. émission bi jeex na ma ci damay tàggoo ci benn événement bu mag bu am à Diourbel notre seul et unique champion du monde de karaté Amadou Ali Ndiaye. Ah, mu organisé benn tournoi open euh, Diourbel euh, Bawol. Euh, mu nekk nag ñaari catégorie moins de soixante quinze kilos plus de soixante quinze kilos ci jigéen ñi. ak ci góor ñi. sargal waa Awa Ndaw Latifa mi nga xam ne nag ñoo def petit tête bu baax bi sargal bu baax a baax ñi nga xam ne nag saa su ne ñoo jàpp ci bijoux yi di waa kër Cheikhul Khadim ñoom itam ñu leen di sargal di bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax sargal it béy mi nga xam ne nag moom itam moo gën ci mëf bu baax bi. ak képp ku jàpp ci émission bi ñu ngi lay sargal amoon mbégte ak bànneex doon ànd ak yéen tey nag nuyoo gi dama koy jagleel ñi nga xam ne ñoo nekk diwaanu New York City. rawatina waa Harlem 112 ñoom ñëpp di leen sargal su ma limee juum dañuy bàyyi xel lay du tigre sa su ne di ko seetaan fajar parce que nag dimanche heure bi muy daw dafay tombeek mu nekk ci fajar waaye dañ koy seetaan ak euh, li nga xam rek moo di àjjuma heure bi muy daw ñuy sargal bu baax a baax ñëpp ñuy doon seetaan bu ñu juumee ngeen jéggal ñu euh, naan leen lu fi jub rek comme ni ko tonton Tafa doon faral di waxee yàlla sunu borom la petit su la neexee fay say caméra <laughs> SIC Sénégal SA, banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce au Sénégal moo leen doon may l'œil du tigre